ñu gisee ci réseaux sociaux yi aussi man noonu laa ko gisee parce que nit warul yéene moroomu jullitam kaso parce que kaso métti na métti boo xamante ne surtout si mag nit waru ko yéene nit te bu dul dara am nañ lu ñu liyee maag moom muy xale bi donc duma ko yéene kaso bi ko affaire bi dalee métti na ma métti lu naa ko torop sama famille aussi métti na leen trop trop mais sant yàlla ok ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci